acca jërë ngeen jëf yéen suñu mbokku internat bu cent 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delloowaat ku nekk uh, sa wàccuwaay amaat leen di kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak kilifa yëpp tey nag ma fas yéendalaat beneen kilifa naam kàngam la ndax uh, kenn du ko présenté ti doon na koo xam ne ku ràññeeku la fii ci biir site bi di 221 people biir réew mi àdduna wërngal këpp kooku mooy Serigne Dame Seck mu Serigne Touba tey nag ñu fekk fii ci Touba di dëkk bu màgg bi bu tedd bu sell bi ñu fas yéene waxtaan ci ponk yu am solo laata ma ñëw foofu sëñ daam mu bàyyi la nga ñëw mbokk askan wi. Mm, waaleykum salaam Cheikh ñi ngi leen di dalal jàmm bu baax waaye ñi ngi ñaan tamit bi jaaxi man xaysama saadaatu xaaribaha samsuntu xaaribaha fii saxri aqmaaru Cheikh ñi ngi leen di ñaanal jàmm waaye ñi ngi ñaan tamit borom subhaana taala di jàmm ci réew mi ñi ngi ñaanal tamit bu baax sama baay sama yaay sama lépp sëñ Muntaxa Basiir nga xam ne mooy suñu nday mooy suñu baay nun mel mooma ñu ngi koy ñaanal jàmm jàmmam di gën a yokku ñu ngi ñaanal tamit sëriñ Babacar Si Mansour mu yàgg fi lool te weer ak waa kër maam Ibrahima Ñas yi waa Kaolack yëpp rek ñaseen yëpp ñu ngi leen di a jàmm. Mm-hmm. ay nit yu sell lan yu bëgg xaadimal Moustapha te man ku bëgg Serigne Touba rek dama lay bëgg di ñaanal baax sama baay bopp nag euh, maam Thierno Sama Sarr ca Fouta ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax ak waa Kaolack yépp ñi ma jot a jaar gëstu xam-xam di gërëm ñëpp rek waa Mali yeeg ñëpp rek mm-hmm. Cheikh ñi ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal waa kër maam euh, ba waa kër maam Baye laa yoo fi ñi ngi ñaanal ñëpp rek Cheikh bu ñu limee dañuy juum Cheikh mm-hmm. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Dame Seck mu Serigne Touba ñu ngi lay fay bu baax di lay di lay gërëm di lay kontaane sa néew yu set yooyu noonu acca tey nag li ñuy waxtaan ci xam-xam la dañ koy xaaj ci ci ñaari pàcc lii de jëm ci ñaan bi ngay def lii dem ci paj bi ndax euh, doon nga koo xam ne ku ci ràññeeku la mm-hmm. euh, fi may euh, tàmbalee tey nag bokk na ci tur yu bëri liñ lay wooye mm-hmm. li ma ci jàpp sëriñ Dame Seck borom fajkat rab bu mag bi sëriñ Dame Seck borom listaxaarkat bu mag bi sëriñ Dame borom xalooto bu mag bi tur yu bëri yi lan moo ko waral lan waaw tur yu bëri yi li ko waral moo de seex ñun dañoo yor sirru xam nga ñun dañoo làmbatuwut dañoo làmbatuwut bu fekkoon ne dañuy làmbatu ndakaaru goog yi ngeen jóge foofu laay dem di def ay dóor waaye damaa amul jot googu ñun seru lan yor turu yàlla lan yor mhm. xajuñu ci ay caaxaan loolu tax sëriñ bi dij ma tuubaa te réccu ma ko tamit dij gi ma fi dij xalwatukat bu mag bi li waral moo de ay kilifa yu bëree bëri ak ay autorités yu bëree bëri dañuy fàttaloo xalwa mhm. ndax ñun wàllu xalwa yàlla fa dogal dañoo xam yoon wi xam nga xalwa aw la mhm. xalwa aw yoon la te dafay am foo ciy egg da nga ciy am ijaaba loo jubloo def danga koy def mm-hmm. du mat sax ñetti fan benn fan rek mën nga cee dugg nit ki fatul ko xalwa yooyu yëpp sotti muy kii bëgg kayit moo xam ku am ay jafe-jafe mm-hmm. loolu bu lawee nag ci bopp ni ñu naan moom de xalwatukat bu mag la ay kilifa ak ay autorité rek lay fatul xalwa kilifa yi sax danga nga leen dugal xalwa voilà tarkalla léegi mm-hmm. fajkatu rab bi li ko waral moo di dañoo bëri sutura ci li ñuy def dañuy faj ci wàllum àndaale rab mag ñi ñuy wax waaye alxuraan wa maa xalaxtu jinna wal insi illaa liya'budun dama leen yàlla dañoo sàkk ñun ak i jinne kon jinne rek moom waaye mag ñi ñoo daa wax di daa amee rab àndalaale rab ak yooyu mm-hmm. léegi ñun dañuy faj te faj gi ni faj mm-hmm. léegi sax jortu nit ñi di fi bëri ndaxte filme yi laay bañ man bëgguma ay filme mm-hmm. bëgguma ay filme fu nit ki mën a nekkee rek buñ ko xoolee dana mën a xam diñ koy yónnee allo Dakar yeeg yëpp a ngi fi CPE am nañ CPE Europe yeeg yëpp. Mhm. amuñu benn problème ci côté boobu. Mhm. waaye ñu ci bëree bëri dañuy triyaane nit ñi. Mhm. di woo ay nit di ànd ak i animateur di fi woo ay site nit ñi ar ñuy arnaqué nit ñi di jox ñi yuux ay xaalis. naan yaa waxal yaa ma faj ci rab ak yooyu di yuuxoog yooyu. ay caaxaan la rek. ay caaxaan dong la. yooyu ay caaxaan dong la tooñu ma de li may xam-xam la man. man dama tooñ. parce que dañ ñoo yar. yenn ay caaxaan képp képp la. man nag oo ma jot googu. sutura léegi nag bu lawee moo waral naan moom de moo ne fajkat bu rab la fajkatu rab bu mag la mhm. te moom da cee boole sutura xam-xam day am sutura ci listaxaar listaxaar mhm. li war a ñu naan sëriñ daam sekk listaxaarkat bu mag bi kilifa yu baree bari a ay autorités yu bëree bari bala ñoo dugg ci dara dañ naan ñu listaxaaral ñu ko soxna des koy listaxaar kër des koy listaxaar oto bu war a ñëw ci yow da nga koy listaxaar mhm. listaxaaru dafa am solo de ñun yoruñu ay peetaaw ay turi yàlla lan yor ay turu yàlla lan yor yoruñu ay pettaaw ak yu ma xamul duñ dox ci yooyu ñun ci lu leer nañ ci la ni dox loolu moo war a kilifa yu ci bëri doyloo ñu moo war a ñu naan lis saxaarkat bu mag la jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Dame Seck mu Serigne Touba euh, mu mel ni ponk yooyu ngeen bëggoon a xam leer na nañ jot na cee indi leeral yu am solo acca waaye li ma gën a jaaxal yàggul dara euh, dañ nañ def émission ñu dugg ci mbiram jinne mhm. sànq sax dem nga ba dugg ci biir léeg-léeg nga ne jinne yi dama leen di di wax di leen di saaga di wax di naan bu ci tuuba dinaa la duma man te yooyu doon na loo xam ne lu ma jaaxal. waaw waaye nag seex nga mën a gisee jinne waxatuma ngam am fit ba di koy saaga. jinne jinne doomu aadama moo gën a foor jinne jinne man man doomu aadama bu ma jàkkaaroog doom aadama dama ne la roogi laay waxal loolu li ñu ko may mooy dañoo am fu egg ci turu yàlla roogi nekk ci doomu aadama man moom laay waxal kii kii wax ak roog doomu aadama roog jinne daa tax ñuy wax jinne du dara doomu aadama gën a foor bi nit ki bu eggee fenn ci turu yàlla jinne yi dañ koy feeñu di jébbu la ci moom ah. léegi nag man su ma saagaa jinne jinne yi tuubale yi ñooñu laa saaga waaye saagawuma jinne yi nga xam ne damay ànd ak ñoom di julli si damay ànd ak ñoom di julli say àjjuma ak yëpp dafa am jinne yoo xam ne fi mu ne yow seex hmm. ñoo la dàq jaamu yàlla yoo xam ne dana jaamu yàlla boo àndeek ñoom sell ci turu yàlla dañ lay feeñu di jébbu la ci yow parce que jinne mun ta doon sëriñ doomu aadamaa koy yëlëf waaye bëggoon naa xam jinne yooyu nan nga leen di saaga. nu ma leen di saaga saaga ndax li ñu saaga nit ñun xam nañ ko waaw. waa léeg-léeg ñu andil ma nit koo xam ne jinne bi ko dugg day dëgër bopp. te ñu bëree bëri seex ma dimbalee la ci leen ñu bëree bëri ñu ngi ci hôpital yi. ndeysaan médecin yi di leen faj di sonn wallaay la leen jàpp du mbirum faj du mbirum hôpital de jinne yu bon yi li tax ma saaga leen mhm. li tax ma dagga leen saaga na jinne bu ma ci moytu jinne yu tuubal bu ma ci moytu ma téegal ndayam li tax ma wax loolu mm. jinne yu tuubal yi nga xam ne dañuy dugg nit ñi mm-hmm. di defay effet yu bon ci doomu aadama yi loolu laa ne ñoo looloo tax ma leen di saaga te li tax ma saaga leen dama fu ma egg ci turu yàlla ba mën leen a saaga yow jinne boo ko gisul gisoo ko rek waaye ñun dañuy gis jinne dañuy mm-hmm. saaga jinne dañuy yónni jinne mu dem ñëw mm-hmm. jinne du dara du dara doomu aadama gën a foor seex kon loolu loolu seex mhm. euh, ñi nga xam ne egguñu fenn ci turu yàlla mhm. loolooy tax loolooy tax mu leen di jaaxal waaye ñun dañoo am fu egg ci turu yàlla ba nga xam ne jinne yi dañuy jébbalu ci ñun mhm. moo waral ku ci defut noonu noonu rek. ma saaga la ba pare lijjanti koog yow. ku dugg nit ki tamit di ko indil ay jafe-jafe. Mhm. bu ko Serigne Dame Gueye da damay xam jinne ba ban façon la ma jàpp jinne bi maa ngi moom la. Ah, jërul sax ñëw jërul ñëw ndaxte kër gi day bëri ay nit mhm. nit nit ñi faj ci wàllu jinne ak yooyu nit ñi faj nit ñi faj ñi nga xam ne jinne daf leen jàpp ak yooyu ñoom rab la ni wax mhm. naan di sama rawam ji fajal ma ko naangam ak naangam jërul ñëw parce que kër gi day bëri ay nit te man léeg-léeg damay nekk ci ay fatoy xal wa jàpp ak yooyu waaw jigéen ñoo xam ne tamit dañoo të am doom noonu tamit la demee jinne daf dugg mhm. yàq tamit jarul ñëw jërul ñëw na ma yàlla baal seex sëriñ ci bëree bëri nekk ndakaara foofu mhm. du ne sëriñ te tëddee jigéen ñi rek lañ fi nekk mhm. nga ne ma maa la xamal lool nga ne sëriñ su bëri nekk foofu ñu ci bëree bëri nekk foofu tëddee ñi dong la ñuy def taxoo jàmm de acca dem waaw sungu fi nga gis lan moo tax mu jóg. waaw sunguf yi nga gis nii Cheikh. Mhm. gis nga Cheikh sunguf yi. mooy sunguf yoo xamante ne waalo cat a cat la. Mhm. wàllu cat xam cat day borosu nit ki. Mhm. sonal ko witt bu tëddee nelaw. mu naan jinnee ma jàpp ak ne léeg-léeg cat dana borosu nit ki yàqal ko. ñu ci bëree bëri faatu sax cate leen rey ay bët. ak làmmeñ yii ko tax a jóg képp koo xam ne laal nga ko mm-hmm. ak ay cat yooyu du mën a yow dara day raxas lépp bam sax mm-hmm. sungu moo tax saa su ne mi ngi ñëw Allo Dakar mi koy indi foofu saa fi mm-hmm. waaw bokkul ak ba tey bokkul jaaro yi Cheikh jaaro yi ci wàllu poobaar lay dox waa jinne yi jëluñ doon jël <laughs> man dama leen yónnee. bu ma leen yónnee. Ah. li ma leen def loolu dañ koy def. ñëwal ci jaaro jaaro yi nga seen seex. Mhm. du jaaroy gone. ay kilifa yu mag ñooy takk jaaro yi nga seen nii. moo képp ko xam ne jot nga ci santal yàlla bu baax a baax. kon sa ñaane jaaro ci mag ñi rek lay jaaro yi nii. Hmm. waaw gone gu kii tamit gone bu loxoom setee dana mën a bokk ak ki mag seex. waaw gone gu ci góor-góor tamit ñu dimbale la jaaro dafa ànd ak ay sàngate boppam. Hmm. du ay jaaro yoo xam ne dañ la koy jox nii rek nga takk dem de déedéet. man muy jaaro yi mm-hmm. muy ndomba 21 gaw yi mm-hmm. muy sungu fi yépp dafa am dafa ànd ak i sàngatam ah. parce que dañuy raxas yaramu doomu aadama bi soo koo takkal jaaro bi ah, jaaro yi wàllu wërsëg la mm-hmm. macha allah maa mënoo koo takk te doo am xaalis da ngay dimbalee rek nit ñi dañuy sukk ci yow nga leen di dimbali mooy wàllu jaaro yi macha allah nekkul gone yi nga seen ni jaaro yi nga seex seex yi du yëfi gone yombal nañ ko nag pour askan wi ndax man lu ma mën a am askan wi am jàmm moom ma ko gën jaaro yi bëri nañ to bokkut bokkuñu bokkuñu bokk jaaro yi Cheikh jaaro yi te jaaro yi gone mhm. képp koo xam ne jot nga ci santale yàlla bu baax a baax macha allah jërul euh, bokkul ak ba tey nag ndomba 21 gaw bi ndomba 21 gaw bi loolu wàllu kaaraange la ah. nit ku la laal day faatu ndoom ba 21 gaw boo gawee yëpp. Mhm. nit ku la laal day faat. ñu ñëw ci ñaari guddi yi. boobu moom loo rek ak tax mhm. tax a jóg. atia bitéel yi nga gis nii seex. foog naa du ndoxum mhm. moom tamit du yëfi gone noonu laa la ko mën a wax. ku koy sangoo guddi nga koy sangoo ëpp fa kawee nga koy sangoo. moom tamit pour mas a nekk ci yaramu doomu aadama bi. day raxas suba set wicc bu ko defee wàllu xaalis daf koy daal yomb Cheikh xanaa xamoo ne nit ñi sëriñ si li ñu war a def mooy gëstu ji lan mooy maye xaalis te ñun yàlla dañ cee dimbali. yàlla duñ ci dimbali bu baax a baax secret yi nga xam ne buñ ko waxee doomu ba liggéeyal ko ko mhm. mu bu ko sangoo day day dimbalee ñun yooyu lañ gën a ëpp luñ gëstu wala ñu fàttul nit ki xalwa macha allah parce que day ñoo xam ne seen tabbeexa day tëju mhm. seen biddiw day tëju bu tëjoo nag si ah ngaa sangoo sangu bay bëgg a dee dara du tëju ko nga ne sëñ bi xamul dara wàllu ngóor fan laa ci maye ñetti façon ngóor a laa yor wàllu ngóora ñetti façon laa ci yor ban ak ban bitéel yi moom bitéeli coupe beekaay la leer na seex mhm. mais wàllu ngóora mhm. ñetti façon laa ci yor dafa am yoo xamante ne nii mhm. pour ñetti façon la bu ma joxee nit ki bii bala ma ko bu ma ko joxee bii bu bu ci gisul boppam dama koy joxalaat dama koy dugalaatal beneen ñetteel ba moom daanaka jotul nga cay jot ña ña ñaari rek wóolu naa ko li tax may def ñett damay bëgg ku laalanteeg sañ daam gis njariñ looloo tax maa du la jox nag nga ne gisuma de sañ daam ma daal di lekk sa xaalis déedéet dama lay joxaat beneen maa la xamal loolu ñun dañ ci seet yàlla mooy wàllu ngóora bokkul ak ba tey waaw bokkul ak ba tey nag eh, ki nga xamee xam nga ngóora day am ñoo xamante ne nii danga naan ngóora laa bëgg rek mu daan lay dugal wàllu ngóora ñun boo boo joxee sa tur ak sa turu yaay ban lay liggéeyal ngóora bu fekkee ne takk xala la def dañ koy dindiwaale ci sangat yi yónnee bokkul ak li ngay naan wàllu ngóora bi suñu liggéey dañ ko teg ci yoon de seex mhm. moo tax xëjuma ndakaaru googu moo tax may fara toog Touba parce que man xëjuma ci ay caaxaan ñu ci bëree bëri nekk ndakaaru foofu dane business di nax nit ñi doong <laughs> dane nax nit ñi doong waaye nag mhm. yàlla róogum du tayee amul gis nga nit ki mhm. na nay seet yàlla accident yi bëri na dee yi gaaw nañ wala xam ngeen li ma leen wax kon nan delloo delloowaat seen xel ci yàlla bàyyi doomu aadama yi ñi nax ba gëmatum sëriñ si ñaaw na de te ñaawlu naa ko man sëñ daam sekk bu sëriñ Touba te waxoon naa fi ñuy bàyyi filma yi léegi leen di dégg ñu ci bëree bëri suñu ci bëree bëri naan ku siiw kii day faatu ku kii day faatu waa doomu aadama bu faatu nu muy def day day dund rek day day continuer mun ta mhm. ku siiw ba faatuwul lu tax mhm. ñu siiw ñu ñooy kan ba duñ faatu ku jeexal dëdd waay mhm. waaw léegi nag lu tax dañ naan euh, incha allah du yàgg dara ku ku siiw dana faatu naa ko na ku siiw kooku ba faatoo ñu ne moo ne sëñ bi ab sëriñ la loolu taxul da doon loolu taxul di doon sëriñ de hmm, déedéet <laughs> loolu doon sëriñ de ay sóob la ak ñenn ñi di ànd ak ay nit teg ay diil bu kooko feebaree ñu ne koy diw de kilifa la te feebar waxal ci moom xam nga boo waxee mu tombe ñu nee sëñ bi daa am xam-xam du xam-xam de ñu ci bëri bëri dañu térianin ñi rek mu ko jërëjëf sëñ Dame Seck topp média yi di ñi rek la ñu def ne ko ci jërëjëf euh, sëriñ Dame Seck mu sëriñ Touba euh, fi ma bëgg a dugg nag dinaa am euh, yëg-yëg dinaa am kontaan pour dugg fi ndax kii mooy duma jinne yi kii mooy saaga jinne yi sëñ Dame lim ñëpp di xaar. Hmm. kan doon président 2024. Euh, euh, Sonko Sonko mën nañ koo dimbali waaye fi mu ne moom mi ngi ci ay jafeñ-jafeñ. te ñi ngi ci te ñi ngi ci moom tamit ñi ngi koy yàqal am na ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi yàqal Sonko ñi am na ñoo xam ne ñi ngi koy ñi ngi koy dugal ci kàmb koy tàkk ma am noonu laal ko ñu ngi koy fexeel lool. ñooy ñooy am na ñu koy yàqal ñi yàqal Sonko. Mm-hmm. man xam naa leen waaye jarul ma naan diw mi ak diw mi day yàqal Sonko waaye nag man sañ naa lancer li nga xam ne gis naa ko sañ naa ko wax. mais Sonko na jug ci na gën a jug ci yaramam. Mm-hmm. na jug bu jugut ci yaramam da ngeen da ngeen ne sëñ Dame Seck waxoon ko te yéen a ngi fi maa ngi fi. bu sooba yàlla da ngeen ma fekkaat Touba na ma leen ko waxee woon. xanaa du jàmm moom daal na gën a jug ci yaramam rek. bu jugee ci yaramam daal ci kàttanu yàlla tabiaxam mën naa yëkkati ko ba nga xam ne mën naa doon président bi. 2024 naa doon président 2024. Ah, Macky mi nit ñi di coow ak léegi ah, ah, ci mën a wax. mooy moom te mi ci pexeem. bin ta bin ko xoolee te fatu ci ay xalwa ndax léeg-léeg dañuy def ay fatu xalwa pour ci réew mi. Mhm. bokkule nit ñi ñuy fay naan ñu fatu ñu déedéet léeg-léeg dañuy def fatu xalwa pour ci réew mi doxoo réew mi ni muy ni muy doxee. Mhm. ak ci yenn loxo lay mujj. ndaw ñi nag sonn nañ. Mhm. ndaw ñi sonn nañ na leen état bi dimbali. hôpital yi nit ñi sonn nañ trop nañ ci dugal seen loxo. waaw waaye wàllu Sonko moom li nga xam ne moom laa ci mën a wax mooy na gën a jugaat ci yaramam. bu jugut ci yaramam. kaam bu koy tàkkalaaka gisal. am na ñuy réew mi tamit ak yëngoom gis naa ko tut ci kanam. na ñëpp gën a génne say at nàkk at yi nit ki am na ko génne sarax beneen bi topp ay mburu tamit nit ki génne ko sarax maam yow tey jii seex man la ñaatat nga am. Mhm. nga am nga fanweeri at. Mhm. génneel fanweeri nàkk ay dànki xam ngeen ko. nga génne ko sarax bésu alxames wala bésu altane. Mhm. mburu tamit noonu say at nga génne fanweeri at mburu. tey jii maam nga ne sëriñ daam ñaatat la mu ne sëriñ daam ne juróom fu at la am day génne juróom fukki dànk du ko ëpp nag du ëpp de. Mhm. même bu dee dànk yi day am yu mag am yu ndaw baax na mais bu ko ëpp. bu ko ëppee rek dootu baaxante. defaale ci ay mburu at yi sëriñ daam am mu génn ko mburu mhm. maam sëriñ daam juróom fukki at la am na génn juróom fukki mburu pour balaa yi nga xam ne ak tàkk-tàkki réew mi ak jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko bu ko dee képp koo xam ne def nga loolu suñu borom dana la élection locale yooyu noonu euh, loolu laa la wax nii yëngu réew mi loolu laa la wax nii Cheikh kon képp koo xam ne def nga lii mhm. suñu borom mën na laa dimbali mairie boo xam ne tamit bëgg nga fa nga nekkoon nga nekkaat fa mën nañ laa samp buñ la fatulee xel woo ba pare samp la samp la fi toog la ñu toog samp la falaat la te ku la fa bëgg a yëkkati ku day faatu ñun amuñu lu ni sek saak. ci lan ngay tàggatoo amuñu lu ni sek saak. jërëjëf. wàllu pouvoir la te yor nañ ko ba mu doy sëkk. macha allah. xam nga ku egg fenn fi ci turu yàlla ba naan jinne moo moytu ma teegal ndeyam. Mhm. jinne yi tuubuli waxuma jinne yi nga xam ne saa su ne nag damay bokk ak ñoom di julli saaju. am na jinne yu sell jinne yi ma saaga mooy jinne yu bon yi. te samay mbir tamit képp koo xam ne jëfandikoo ko jinne yi dañ lay moytu. jërëjëf. kam ne ni moytoo sëñ daam rek lan lay moytoo. Mhm. kan ndaw yi nan defar a jowaat. kon leer nan defar a jowaat. Ousmane Sonko na defar a jowaat. waaw na gën a defar a jowaat. waaw waaw tey doo looy tàggatoo ci lan lay doon. waa euh, euh, wàllu kayit tamit Cheikh. Mhm. ñëpp koo xam ne ba nga wàllu passeport yomb la wala visa yooyu seen nga. Mhm. waaw am na sëriñ su ci bëree bëri nag naan wàllu kay bàyyi. ni jeexal euh, lii jaaxal ma de man damaa sopp. dërëm yi dërëm ma ko jox. dërëm yi dërëm yi jinne la. pour sangat yi nga xam ne pour nit ki. pour mu mu jël ko. waat naa ko ci màggug arxuraan ay jinnee ma ko jox waat naa ko ci màggug arxuraan ci la ci laa tibb ay quelques dërëm fukki dërëm ak juróom-ñaar la seru la. ay jinne la ko jox ay ko jox waat naa ko ci arxuraan man arxuraan du ma ci gi ñu caaxaan ay caaxaan xajuma ci saaga jinne ak jinne boo ko yónnee mu dem ñëw kooku dana xaj ci caaxaan kon sëriñ si nga xam dañuy mbubboo naan ay jinne lan yorogee dañuy nax nit ñi rek yoruñu tus tus lan yoru nan jaamo ji yàlla te bàyyi ji dem ci tool yi liggéey te am kilifa nit ñi nii rek ala kulli xaal danga ka gi nañ bàyyi caaxaan yi mm-hmm. waaw képp koo xam ne nag woo ñun danañ la dimbali danañ la teg ci yoon bu la wàllu xaalis itteelee rek danañ la teg ci yoon dimbali la incha allah boo feebaree tamit feebar boo mën mm-hmm. boo ñu woowee danañ mën a xam ba xam jinne yi ban feebar nan la sànni yu ci bëri bëri jinne yee kay sànni incha allah mooy mm-hmm. apet apetik bee mm-hmm. boobu tamit feebar bu lëmbee nit nii la am na boo bu yàggu jinne ju ma caw mu ne euh, maa ko maa ko maa ko def sirru maa maa ko dugg maa dugg diw mi du tudd turam ku siiw la ci Tuubaa dane maa ko dugg euh, taxaw ci xol bi jërëjëf nga xamante ni dootu nooyeeti. Mm-hmm. ñenn ñi ci ndigg li lay taxa toog ngelaw lay def toog ci ndigg li di indil jafe-jafe nit ki képp koo xam ne jaaxle nga rek boo ñu woo la dimbali incha allahu rabbi di ñaanal réew jàmm rek jàmm rek dafay am di ñaanal sama baay sama yaay sama lépp lépp mooma mm-hmm. fu ñu egsi ci turu yàlla mooma moo ñu teg ñi ngi ñaanal ñëpp képp koo xam ne rek ba nga lijjantu ko incha allah boo ñu woo ñu lijjanti la Cheikh ñi ngi ñaanal ñëpp